maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di kontaan si yéen lu tax ma ni di kontaan si yéen mooy làmb xew fi de makan moo xewle ngeen bàyyi seen lépp ngeen ñëw gis naa ni yég ngeen ma awma seen fay nag dama leen di ñaanal yàlla mu yokk seen wërsëg mu rafetal seen liggéey mu may leen loo xamante ni yéen a koy séentu fi ngeen bëgg yegg yàlla may leen fa ngeen yegg incha allahu rabbi seen liggéey rafet na comme ni ma koy yàgg di faral di waxee yéen a ngi liggéey ak professionnalisme te su ngeen liggéey ak professionnalisme rek jàmm laa ciy gis yàlla yàlla yokk jàmm ji tey nag ngénte la. wala tudd dama woon tudd la sax waaye léeg-léeg moom dangay ngay bëgg def lu ndaw waaye yàlla mi di suturaal nit yokk ko ba mu nekk ngénte ma ciy sant yàlla bu baax di ci julli ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare di gërëm samay waajur bu baax a baax baax a baax ndax nu ma mel tey rek ginnaaw yàlla ñoom la donc du ma dolli du ma doyal te di leen sant di leen gërëm di dolli encore une fois di leen nuyu di wax ni que tey moom bésu mbégte la bësu mbégte la ma koy sant yàlla bu baax di ñaanal bébé bi mu gudd fan lool ba ñëpp fekkee ay njëriñam incha allahu bi état de santé mbaa mi ngi am tawféex sant yàlla bu baax daa bëggoon génn sax bokk ak yéen jotaay bi waaye xam nga rek mu ngi leen di nuyu comme dafa xaw a taw tuuti mu ngi feex Gabon ndax lu mu mën tey am na ay fan mu nu ko woon donc sant yàlla bu baax a baax a baax a baax dina dellu si ñu ngi koy xaar incha allah le premier janvier mu nuyoon tegu waa people bi yëpp ngeen gis ko ci jàmm ngeen xam ni ko wér na bu soobee yàlla suñu borom. yàlla na yàlla dolli wéram. allahumma amiin li ñu bëgg ci état de santé moom ci lu kawe njortam amiin mais ma kon woote ñu wuy si la nan lay def ci yow parce que tey gis nañ ni le monde de laaj loolu wuy si waaw loolu vraiment mooy comme lu ma la wax rek mbégte la euh, nga woote ñu wuyu si la loolu day day lu rëy ci man ndax euh, defuma dara loo xamante ni war ngeen ko def pour ma xëy na cër bi ma joxe rek ak yëg-yëg comme ni ma koy faral di waxee rek nit day wàcce boppam tolloon te ñëpp fii kenn gënu fi rëy kenn kenn ëpp la fi kenn dara yàlla nag mooy joxe waaye lu muy joxe àjjana kenn xamu ko dañuy fay jëf rek képp ku fi jëf-jëf bu baax su boobaa incha allahu rabbi yàlla dana la fay sa xol man nag loolu laa leen ni ñaanal ku nekk daal ku jóg na jëf-jëf bu baax ngir ëllëg ñu ñëpp benn lañ te liggéey su rafetee rek mhm. yàlla rafetal sa lépp xol su rafetee yàlla rafetal sa lépp loolu daal lay dénkaat gaay yi. sànq wax nga ana ban taxawaay la ñuy xaar ci Gaston Production parce que kenn dootu leen jàngal bis te na mën a seen i journée nag dan ngeen nar a ñëwee. non 1 janvier moom date historique Boy Niang Modou Lo deux super VIP combat royal combat des gladiateurs Gaston Production tëggu ko ku ne di ko xaar Sénégal diaspora àddina dañuy ñaan yàlla rek ñu yegg ci jàmm ak salaam ñi ñëw comme niñ daan ñëwee def lu rëy amateur yëpp kontaan sénégalais yëpp kontaan loolu daal lañ nar. d'accord ñu gis ci diggante bi Eumeu Sène jël na avance te kenn ku nekk nga doon xaar mu fëreel Gaston Production ndax waxtaan ba déggool wala dañ ko libéré wala lan la. Eumeu jël na avance su ko neexee jël 10 avance su ko neexee jël 20 avance mais li nit ñu war a xam encore une fois mooy Eumeu Sène il est sous contrat ak Gaston Production amel ko combat su ko neexee nag jël avance loolu amul gis nañ fi Balla Gaye jëloon na fi multiple avance moom ci wàll boppam jëloon na fi multiple avance bi muy bëreeg tafaatin Tine mi ngi woon ci contrat ñu ñoo ko may mu dem bëri ji suñ la mayee nga dem bëri ji mën ngaa dem bëri ji su dee mayuñu la nag. da ngay toog xaar ba bëreel ki nga war a bëreel soo a dem bëri ci dégg nga ma. mi ngi noonu pour bi nga doon xaar tam bu Balla gay 2 loolu tam fan ngeen ci toll parce que am ngeen ci yaakaar moo dugal ko bañ koo dugal. loolu encore une fois man mënuma cee wax Balla gay su dee tane na dafa dugaloon maladie na dem dugal guérison am nit ñi xam fu mu toll su boobaa ñun ñu mën a wax ci combat boobu. ndax actuellement nii comme mi ngi ci loxo CNG mënaguma ci wax dara xam nañ ne que daal contrat bi c'est bien régularisé au CNG Balla Gaye Eumeu Sène donc su naree am rek incha allah dinañ ci waxaat ba ñu jàpp date. Makane yéen lay njëkk ba euh, Eumeu Sène yéen lay njëkk a bëreel wala ñee lay njëkk a bëreel parce que lool tam nit ñaa koy xaar parce que cafka gi ku nekk di xëccoo mooy yaa may njëkk a bëreel tey yéen seen côté wala côté bee. non Eumeu su ma nee mi ngi sous contrat ak Gaston Production c'est parce que mi ngi sous contrat ak Gaston Production warul bëre kenn ku dul Gaston Production ba pare soo ko bëri keneen à moins que ñu seet si ma comme ni ñu ko defee ci tafaatin ma may leen mu bëre ji mu soog ma ameel combat mais loolu amagul. kon fekk ñëw ñu daal jàppal ni jàpp nañu yow la ñu njëkk a bëree. il est sous contrat ak Gaston Production. dañu gis promoteur bu ko taxawal di Baye Ndiaye tamit moom mi jàpp na daal insisté ci samedi le 27 janvier wala tamit saison de lutte 2023 2024 ba tey mi ngi wéyal di waaj combat pour Eumeu Sène ak ki nga xam mooy euh, Sa Thiès pour ñu bëri. Euh, Baye Ndiaye moo taxawal combat bi xam na bu baax lu muy def. Mhm. génne na benn affiche. am na bëgg-bëggam nag mais affiche am bu mu def dafa ne saison 2024 xam na lu tax mu def saison 2024 samay frère lañ moo ko Aziz yëpp c'est la famille dara duñu réer euh, d'ailleurs ay doomu Gaston Mbengue lañ suñu bëggee dara ci Gaston production xam nañ fu ñuy jaar soo nee des frères loolu dara du ko dindi léeg-léeg nag nga gis nit wax ci mais jarul ñu ciy wax lu bëri ndax famille su amee jarul ñuy jéem a di leen boole wala di leen jaxase nit ñi nañ jàpp ni que c'est une famille unique encore une fois Baye Ndiaye taxawal na Sa Thiès Eumeu Sène mais moom xam na ne que Eumeu Sène mi ngi ci contrat léegi nag kuy ñëkk bëre yàlla rek a xam mais Eumeu Sène ameel na ma combat man. loolu mënul nekk ndax combat bi mi ngi encore une fois combat bi mi ngi CNG Eumeu Sène licence am mi ngi CNG kenn amul droit jël licence su Eumeu Sène les les contrats yi les règles son claires gars yi mën nañ def lu leen neex ci biti waaye suñu yeggee CNG. ay textes ñoo fa nekk léeg-léeg nag journalistes yi war nañ dem di gëstu ji CNG pour xam lan mooy textes yi lan moo ci nekk ak lan lañ ci bind. mën nga jóg yow Modou Anta taxawal benn combat taxawalal Eumeu Sène su la neexee ak euh, Sa mais xam nga ne que pour nga tëgg ko yaa a des conditions et y a des am na lu ñu war a remplir avant loolu. tey euh, sorti yooyu man duma ci wax. Balla Gaye nee na dafa am kilifa muy Aziz Ndiaye kon man Aziz Ndiaye laay déglu Aziz Ndiaye sama frère la encore une fois son mbaayam la su bëggee Balla Gaye bëre xam na fu muy jaar. amel loolu loolu loolu loolu am na yoo xamante ni man li ma sekk li ma sekk mbër mi personnellement accomplir naa ko su dee nag dafa am lu mu wax ak Gaston muy papaam su dee am na Aziz Ndiaye ak Gaston ku ci nekk am na ngeen sa amoon nañ seen numéro ñoom ñaar suñu waxtaanee dinañ juboo mais lu ma sekk man ci contrat man remplir naa sama contrat. fi ñuy daane la Balla Gaye bu dugaloon guérison tey pare ngeen pour wutal ko adversaire bu dul Eumeu Sène wala même adversaire ngeen pare nañ pour ñu gis nga nag Gaston Production daf fi nekk nekk fi pour benn mbër nekk fi pour ñaari mbër nekk fi pour ñetti mbër képp ku am licence à partir de tey tey tey Gaston Production mën na la tëggal képp ku bëgg bëre mën nañ laa tëggal. ñu nag dafa am ay genre combat yu ñu tëgg du ñu tëgg n'importe quel combat euh, Balla Gaye mën na bëreeg Eumeu Sène mën na bëreeg Siteu mën na bëreeg Tapha mën na bëreeg ku ne mais pour mu bëre actuellement Balla Gaye comme dafa dugaloon médical na dem dugali guérison pour waa CNG xam ni que tane na ba pare ñu soog a wax ay waxi combat wu Balla Gaye. Ah, jox nañ jox ngeen Sa Thiès avant euh, avance. ndax tey da ngeen a xalaat tey tëgg Eumeu Sène Franc wala parce que su Fallou dugul crise man su ma doon Eumeu Sène nekk ci fin de carrière 2024 six mois la pour saison bi tëj dina bëree ñaari combat yi muy Eumeu Sène muy muy euh, Eumeu Sène Sa Thiès Eumeu Franc moom moo ciy gagné kase. parce que Franc dégg na ni jox ngeen ko kon problème Eumeu Sène daw tamit seen diggante. Eumeu Sène su woote woon tey ci ngoon ne ma d'accord naa ak Franc combat bi taxaw ñu bëri ko ci début année bi. waa jàmbaar ñu ngi ci Mansour Sànq nee na makan tamit buñ soxlaa euh, franc suñu fere la dinañu ko may. non loolu lu problème man li ma sekk ak jàmbaar production euh, vraiment su bëggoon sama claf sax ma jox ko ko ma jox ko. macha allah pour muy clair. claf bii ma taxawal jàmbaar suma ma neewoon bàyyi ma claf bi mën ko jëlal. claf boobu tirage bi day am dimanche ci signature bi wala présentation lay doon. claf bi incha allah surprise laa bëgg def dimanche mais dimanche dinañ xam kan ak kan ñooy bëre pour première journée bi incha allah. jërëjëf.